ñaaxarañ euh, loo ak euh, euh, le vieux serviteur mooy ki ko doon servir muy sinap di wax ak moom donte ni génn na balo àq dafa juum la wax mais quand même fee bi danañ ci danañ ko jàngat parce que du du du lu rafet. quand même xaritu Ndeye Gueye la de. waaw hmm? xarit hmm. waaw. waaw mais loolu sama xarit la. mais li def du yoon. non mais man xam nga ndeysaan doo wax lii de te sànq nga naan luy nangam nangam. non man dama ni. Ah. man nit. Hmm. sama xarit ngay doon waaye su ma la waree wax li ma la war wax naa la ko. waaw ah, kon ah, waxal. ñaa xariñ loo sama xarit la waaw ñaa xariñ loo avant Wally Seck laa ko xam. yooyu yow wax rek dama bëgg mu leer. man ngay na leer loñ. ci dama bëgg rek mu leer. yàgg ngeen ndax war nga ma fi boo xam ne yàgg ngeen ci lool. ok parce que man bi ma ko seetaanee dama rus. man dama ni vieux bi. déggul olof waaye bu déggoon olof da koy tontu da koy tontu moom. Mhm. loolu lay demee kay waaj na tekk rek ñaa di wax rek. mu koy ree. waaw parce que ñaa des fois euh, communication am da ciy xaw a du ko jëlee dara quoi parfois du ko jëlee dara ay kaf la koy jëlee mais day xaw a ëpp day xaw a ëpp nañ bàyyi xeebaate man loolu rek laay ñaan chaque jour Sénégal dafa am ñoo xam ne dañu mën a waxuma ñaa day xeebaate nekk mais dama ni Sénégal am na. ñoo xam ne paa bi kay moom. am na ñoo xam ne dañu mën a xeebaate. Sénégal dañu mën a xeebaate. Mhm. xeebaate moom seen jikko la. pour ñoom ki am alal rek mooy nit. Mhm. moom la ñuy gën a fonk. damay gis ay nit yu ànd ak ay bor ay waykat fii pour ñoom ñii ñëw di may waali ay million wala ñii ñëw di may di Diop ay millions ñooñu ñooy nit te pourtant woykat ba dund lool de. Mhm. waykat ba ñëpp la yemale mais daf ci am ñoo xamante ni xaalis la ñuy jaamu ba tax dañuy xeet nit duñu mun a xeebaate ñun sénégalais yi ñaa comme que juum na jéggalu na lañ leen ko jéggal rek pour une dernière fois ñu xoolaat encore ba xam dina ko defaat jéggulu yaa ngi bëgg a bari nag xarit tooroodo bi déggulu yaa ngi bëgg a bari dégg nga loolu tarixa jumbóori bi la Hmm? maa ngi jégalu tarixa bu bees bi. tarixa bu bees la. fii ci Sénégal. koo wax ñu ne maa ngi jégalu. maa ngi jégalu waaw. après jàmm man ñaa man. bëri na moom doo ci wax parce que wax nga ci déjà ba pare yow. bëri na si saa bu ñu waxee si moom. Hmm. damay génn ne leen li ngeen ko def nangam nangam ba ci bersi bi. waaw boobu de défendre nga ko. du dëgg. waaw tam waaw parce que. nit ku baax la. xaara xaara. ñaa xarañ loolu nit ku baax la barke Cheikhul Khadim. xaara nit ku baax la mais des fois. communication di ci juum. la wax dafa juum. billaay billaay communication di nga ci juum mais kenn gënu ko xol bu rafet lay yor. xanaa chaque jour lu tax mënoo ko woo téléphone yow nga wax ko. ma wax la. nga ne ko mu bàyyi muy def. non mais nit ko dul juum amul yàlla rek moo moo dul juum. Ah, te sànq da nga ne ma mun nga woo kii nga ne ko nangam léegi lu tax mënoo woo kii téléphone. waaw mais dama ne communication des da ci da ci def erreur moom du ko jàppee dara et lii rek ngeen gis de. ñaar des fois day romb nit sax muy jaay mu wax ak moom ay wax yoo xam ne wala muy jënd dara mu wax ak moom ay wax yoo xam ne du ko jàppee dara. maanaam foo moo ko ëpp waaw kay foo moo ko ëpp doole. te fekk nit ñi loolu noonu da leen déranger te c'est normal nit ñi ñoo nekk ci yoon. Ah, noonu la koy defee daal. donc foo mee ko rek ku la neex filmer. foo mais parce que ci loolu lañ ko xamee ci loolu lañ ko. fayee ci boori non non ah. am loo nit tey. Hmm. bala ngaa filmer dara da ngay xam li ngay filmer ba pare. am na wala amut. ba pare wax balaa muy génn da kay koy da xool ba pare man ma taxawoon rek ñaaxare yow man di ma di ma di ma di ma def loolu. waaw bu dee yow moom sax ngeen. non non non comme maanaam non comme ñu ñàkk xamante ni. waaw nga doon inconnu ci moom waaw ma doon inconnu mu ma dégg li muy wax. bu ma ko ngàddee fan la jëm day génn restaurant bi aval. waaw direct lay ñibbi si waat Sénégal. waaw xam nga tey xam nga tey soo sooy def dara sooy def dara. Mhm. xanaa am loo nit amul lenn looy def yow. lu xam ni boo koy départ dina jaadu tey jii boo tegoon liggéey yépp jaaduwul xam nga loolu mm-hmm. ni nga koy defee moo jaadu du dëgg bu fekkee ni nga koy defee dafa ñaaw mm-hmm. loolu lu mu rafet rafet du rafet ba mukk effectivement comprendre nga ni mi la wax mm-hmm. ba pare yow loo xam ne nii tey jii boo xooloon ñi la jiite nekk say waajur doo leen ko def yaa ngi dégg bu ko defaate lu dëgg xam nga tey su ma xoolee ku ma mat ni dama ko war a jàppe ni jaay ku la mag mag jàppe ko comme sa mag ku la mag rak jàppe ko comme sa rak mm. parce que fii Sénégal ay affaire portable ak affaire yenn yi nga xam ne nii day lu jëm ci yàq nit ak lu jëm ci nga xam ne nii mun naa faagaagal nit fii léegi moom lañ jël def ko fowukaay mm-hmm. effectivement ba pare xëy na yow gis nga ne dangay ngay président tamit ah xëy na moo tax mu xeeb nit ñi. d'accord ah jàpp ne li muy li muy jëflanteeg président ak yu mel noonu. ah taxul mu xeeb nit ba pare lan moo ko wax ni moom su demee ba toll fi paa bi toll est-ce que dina am lu li paa bi mën moom dina ko mën. Ah, am na yaakaar ne. mais yaakaar kenn segam yaakaar nga am jàllagoo dex bul reeku lab te paa bi labul day daan dooleem. Ah, mu dem. ah déet mais tay jii paa bi soo demee dem na ba màgget doomam a nga yor këram lépp a ngi dox mais am na ñoo xam ne mënuñu tëdd. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Ah, Aliou ku ñuy raxasal sa ginnaaw raxas sa kanam warulaa yomb. tëdd Sénégal rek la am xoolal benn waay nee na ma Amérique fi ñuy liggéeyee ñoom. am na benn maire boo xam ne maire bi nee na am na cinquante cinq xaw ma soixante ans maire bi bu toogee ñëwul place bi muy liggéeyee dañ fay jël ñetti sénégalais ñooy remplacer maire bi. billaahi wallaahi. te moom kenn mooy def liggéey boobu. maire bi bu ñëwee moom kenn moo koy def maire bu liggéey siwul wul ñu trois personnes lañ fay jël pour ñu mën a remplacer li maire bi di def. fii liggéey amu fi de gars yi dañuy taxawaalu parce que fii liggéey bi ni ngay gisee da ngay ñëw yow di ma seet si bañ na ko ba si bureau yi dangay seet si nit mu nit ñëpp bëri mu ubbi bureau bi seet kii nitam ne ko duggal. yow nga jiitu ci kanam. nga toog nitam bu fekkante ne dafa yorum njaay mu lal basam nekk fa di wax bu wow bu wowul yow mu bàyyi la ba heure bi jot bu ñëwee montre bi lay xool ne la da ngay joxaat la rendez bu te xamul fooy passé. boo demee Japon est-ce que xam nga Japon day am ay tremblement de terre xam nga loolu. Mm-hmm. fexe nañ ba liggéey seen étage yi seen immeuble yi bu suuf si di yëngu day ànd ak suuf si du yëngatu mais du daan. xam nga ni ñu defee yokk seen économie xam nga ko fii boo duggee métro yaa ngi dégg métro bi fi muy yem si suuf la dugg immeuble yi nga soxla yëpp bureau yooyu yëpp si gaar bi la nekk soo parewaatee dangay dugg dem doo génn pour xoola biir Dakar ci biir biir biir dakaar dangay gis gaa yi depuis temps ba léegi dama am lu ma fi seetlu saa boo wàccee fi ngay fi si si arrêt da ngay dox lu sori nit ñi dañuy dox di tasaaroo ci biir dakaar est-ce xam nga embouteillage bi loolu moo ko yokk. xam nga ko kii waxu bi ñu dalee liggéey ba léegi wala waxu Japon ak. dama xam-xam laa lay man dama la ñaan ngir yàlla ak yonent. non dama la wax benn affaire. non dama xam nga ndéygéey ndéygéey dama lay wax benn ah, affaire. Eh, eh, dire <laughs> wi la vérité. ndéygéey dama la wax benn affaire su may waxati noppil. noppiwuma. noppiwuma. noppiwuma. noppiwoo. noppiwuma. mais boo noppiwul da ngaa ñàkk jom. yaa ma gën a ñàkk jom. yow da nga ñàkk jom yow yaa ma gën a ñàkk jom. ak sama xanaa mel ni pot sàmb. loolu wax yaa ma gën a ñàkk jom waxaguma loole yow su may wax. noppil nga ne doo noppi. noppiwuma soo mais xam nga man day géej. jógal. déedéet du ma jóg de. waxal xam nga ma de. waxal waxal. waaw yow lu ma la xam xam nga ma lu <laughs> lu may xam si yow yow. man tamit lu may xam si yow man damay ma yaa ma gën a dof yow ku la gën a dof am na c'est la ah? yaa ma gën a con eh, eh, eh, yow yaa gën a con ñëpp yow jëndoon koo wax koo wax tax nga weex mi mel ni ku jóge saxit yow doo toog ak sa verte mu mel ni kuy supporter Allez Casa gis nga xoolal bu toogee xoolal suba suba ah. toogee toute la journée dégguma booba kii mu ne ma ne xool des fois maa ma ne ko kookan la xamoo kan la ah Jimbori na nga def yow loo ngay def nii ma ne ko Jimbori maa ngi nii toog tëdd ah dama doon xoore si yoon naka yaram <laughs> yaa ngi def jàmm. Ah. ma ne ko yaa ngi <laughs> eh, eh, feebaree rek la xam. mu naan maa mbéy kii dafa koom Jimbori ak ko ma koo solal. dafa koom waaye du sama. waaye de sequñu dara ak moom. kii dafa koom de. seq yaa lu leer laa la <laughs> keroog fii la toog. xoolal billaahi xoolal ba léegi vidéo bi dama ko téléchargé xam nga man bëriwul lu may ree mu naan deux mille vingt quatre dañ ko génn sa bëgg bëgg bëgg bëgg xoolal <laughs> demani laa illa yaa ngi mer sa xol bi di génn Aliou démb xoolal ba ñibbi xoolal <laughs> démb dañ doon wax affaire nab daas ñooñu doon seet nabu naan dañ ko doon seet maa ngi doon wër seen numéro pour déggee <laughs> Aliou boo ko fekkee woon laajal Bamba naa naan moo tax ma ne ko sa bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg sa bëgg bëgg bëgg na ne baax na. est xam nga est xam nga Ndeye amul bàkkaar. dafa kon. yow yàgg nga Ndeye Gueye nag. sëñ bi ah, dafa kon. soo jëkkër sax léeg-léeg nit xol bi. non léeg-léeg damay dajeeg nit mu may wax wax kii man ne ko mais man lan laa lay wax si leneen kooku dafa kon pare. <laughs> yaa ngi dégg yëpp nga déggee nag. muy ah. déet bi mu nee nii moo tax génneel nañ ko benn way. xoolal ma defe ni lu ne la ndey géey di wax mu naan sa bëgg bëgg bëgg. Idda Idda Idda. Fatal ma foofu. ah. eh baal Fatal foofu Fatal dañ koy bañ léegi. ah lu la laal. Eh, maa <laughs> ci Fatal ma maa ngi. maa ngi gërëm ñëpp. léegi sa bëgg bëgg bëgg moo génn. di sa eh, bëgg bëgg <laughs> moo tax ba deux mille vingt quatre. Aliou fekkee woo ko de moo tax ba deux mille vingt quatre. Eh, gërëm ñu génneel ko sa bëgg bëgg bëgg bëgg. maa ngi ah. non Bamba daa waaru sax di xool ndéygay ndéygay dañ bu doon dëkk bi dafa am loi directement si si si si oto yóbbu fan yow mi ni da ko yóbbu dalal jàmm dalal fee. sa waa ji sax bi mu la déggee woo na la xam naa ne la yooyu bu ko waxati nday jërëjëf jërë ngeen jëf maa ngi leen di remercier ah Ndeye Gueye Gimbori nii lay demee saa su nekk ah. ah bu kenn yaakaar nag dañuy xuloo wala dara dañuy fo rek man ak moom nii lay demee saa su ne di ko ñaanal jàmm di ñaanal Alioune jàmm di nuyu suñu PDG Bamba ak euh, madame Diop ak Ousmane mi nekk ci région bi di ñaanal ñëpp di ñaan ñu màggale gàmm ñëw a gàmm ci doole Cheikhul Khadim